yi di si dalam yi dëgg la boo xam ne président Maodo Malick Mbaye moo ko moom tey ku gis mbooloo mi nii ni mu néewee yi nañu xam ne fii président Maodo Malick Mbaye moo ko moom ku gaan esprit gëm sa bopp aussi ñun ñoo ko moom di lancé appel waa si dalam am na loo xam ne ñun duñ ko nangu ñun seen si dalam yi dañ fi ñëw nag pacifiquement te it bi ñu gisee mbooloo mi xam nañ ne waa si dalam yi ñu ngi renouveler seen engagement ci président Maodo Malick Mbaye Bougane di a ñaanal yéene bi nga xam ne am na ko ci askan bi yàlla ci ëpp kontaan na ci liggéey bi ne